ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ngi leen di ziar bu baax a baax ku luxum ku ñu bàyyi xel fu waay mën a nekk ci àddina rek ñu ngi leen di béggee waaye suñ ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax bu ngeen ma gisatee ma toogati ngeen xam ne ñu ngi ci seen émission bu mag bi euh, nit euh, am solo ñu ko ñaanal yàlla kattanal a baax technicien boobu nga xam ne mooy Rachid béggi ko waaye si kontaane ko nuyu ak ziar Sëriñ Muntaxa borom mbég mi di ko ñaanal yàlla kattanal ko yàlla kawel ko yàlla yàggal ko fi bu baax a baax mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax olof dafay faral di wax naan ki la bot di bëri da nga koy ñaanal mu daan ndax saa su ko saa su daanee rek nga war ci kaw ñaar waaye bu baax a ko fi a ñaanal ko bu baax a baax yàlla kàttanal ko kawel ko te yàggal ko fi Euh, du ñu fàtte benn yoon fii ci Thiès ki nga xam ne mooy sago Thiès Serigne Saliou Touré Touré Bal la di ko ñaanal bu baax a baax yàlla yàggal ko fii yàlla may ko mu bind ay ak nuyu ki nga xam ñaanal ko moom tamit yàlla kàttanal ko kawel ko te yàggal ko fi mbokk yi bu ngeen ma gisatee ma teewati ngeen xam ne seen émission mag bi tàmbaleeti na muy mise au point mise au point nag émission la boo xam ne ay kàngam ak ay nit ñu am taxawaay rek lañ yéen ko bëggal seen bopp yéen ko tàmm seen bopp yéen a ko choisiral seen bopp ay nit ñu am taxawaay ay nit ñu am euh, li nga xam ne mooy taxawaay ci jamono li Serigne Cheikh Al Maktoum daan wax naan nit la ñu koy doy ala kulli haal loolu moo am solo ndax ay nit mënu ñoo euh, xam ne mooy euh, Serigne monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Niang moom mi nga xam ne mooy président ànd defar Daaru Salaam moom Cheikh Ahmed Tidiane Niang moom la ñu dalal tey ndax waxtaan yi nga xam ne ak taxawaay yi nga xam ne am na ko ci ci jamono moom moo nekk à droite waaye aussi à gauche ma dawee ki nga xamni moy l'excellent président euh, l'ancien président bu Darou Salam di monsieur Saliou Niang waye jiite aussi li nga xamni en sa qualité ci wa Revas nga xamni ñom la fi téwal nga xamni moy ñu nekk ci wàllum mécanique ak li nga xamni moy mécanicien yépp machallah mu taxaw téwal len fi aussi ci waxtaan di len ci gën a ak yenen pàcc yo xamni war nañ ko waxtané ci noonu rek lay tourné ci président Saliou Niang euh, nuyu ko ziar ko bégge ko nga xamni fi la fekk baax way fi la ko bax fekk président Saliou ñu lay nuyu gannaaw bañu la dalal ak jàmm daal di leen gën nuyu ak waa àddina macha allah on subilahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw baax a baax ba ci a baax a bi dem ba doon international vraiment suñ ci nga wax fi mhm. ñu ngi leen ñu ànd ñu gunge kanam a kanam ci barke Seydina Mouhamad jërëjëf merci beaucoup mbokk yi nii noonu moom laa dalal tey ci sama émission bu mag bi di mise au point moom président Saliou Niane dalaloon naa ko ci ay émission yi nga xam ne mooy taxawaay mu la la ko baax fekk jiite li nga xam ne mooy ànd defar Daaru li nga xam ne mooy président mooy jiite macha allah ñu jiite ko ca kanam mu am taxawaay lool ñu dalal ko ci waxtaan yi nga xam ne fas nañu ko seq ak moom aussi président Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay ziar di la nuyu di la bàyyi ndem nuyu ak waa àddina. wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. waa seen 24 ini ngi nuyu ñi da koy commencé directeur ba fan wér seen wér ba télé bi nekk internationalement yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla ko yàlla def di ñuy kilifa di yooyu nuyu di ñu boole ci suñu maam di génn àdduna tey ci Dakar allah yàlla na ko yàlla def jàmm. ñu commencé ko bisimilah rahmaani rahiim. Mm-hmm. jeexal ko ci alhamdulilah rabbil alamin. macha allah. jërëjëf am na solo bu baax a baax euh, moom la ñu daalaat moom tamit euh, président Cheikh Ahmed Tidiane Niang mi nga xam ne moo jiite ànd defar Daaru Salaam comme ni ma ko waxee rek c'est important ci entamu émission bi vraiment ñu ñu jaale umma islamique bi yëpp macha allah jaale waa kër maam Cheikh Ahmadou Bamba jaale waa kër maam Cheikh euh, Hadji Malick jaale yeneen këri diine ñoom kër Bam Mbaye Niass këri diine yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal au delà du Sénégal aussi umma islamique bi yëpp jaale yi ki nga xam ne mooy Cheikh al Bekaay Bekaay yi nga xam ne macha allah nekkoon ci xilaafa ji yàlla ci àjjana ñu ñaanal ko bu baax yàlla yokk ay leeram tax ci barke bi mag ñi rek la ñu amal ak suñu xaal ndax émission wala nga wax mu ni mag mu jëm ma ci waaye ñu ngi jëm ma di tey dama lay taxaw des euh, président Cheikh Mati Diagne ci waxtaan wi nga xam ni fas yéene nañ ko seq tey yow nga nekk président euh, association bi nga xam ne mooy ànd def Daaru Salaam tey bu ñu bëggoon xam balaa ñu dugg ci association bi ba ci euh, gox bi nga xam ne yaa ngi fay yëngu tey bu ñu bëggoon xam kan mooy sa Cheikh Mati Diagne lan a teg ci wax ki nga xam ne moom la Cheikh Ahmed Tidiane waaw man Cheikh des secondes laa dëkkoon ñoo toxu si Darou Salaam. Hmm. waaye nag dama ci souligné lu am solo ndax kii ma jàkkaarloo di sama wëllëg di Saliou Niang. Hmm. moom mu tal terrain foofu ba mu am fa kër. Hmm. yemuñu foofu dañuy ñett kenn mën koo fay. ku la dogal tool. ku la ku doom. ak ki nga xam ne itam dugal na la ci diine islam ñoom lan ñu leen fay. dëgg na te moom mii moo ma wutal kër foofu ba pare tudde ma doom Moussa te bu ñu ko tuddee foo kër taxul fu tudd na la tekk jekk ni man Cheikh ko tudde ba mu ko laajee lu tax nga ma ko mu jikko gi tax sa oh. jikko kan loolu inamal yàlla yàlla def na loolu wax yeneen jikko la ko tagg mm-hmm. ah ñu nekk ci benn entreprise la nekk bu ñuy wax entreprise Pen et Frères. Mhm. wala léegi Pen et Fils nekk Moussanté. Mhm. defal matériel de transformation des matériel agricole intervention industrielle. Mhm. transfert de technologie la ñuy liggéey foofu maa ngi fa depuis 24 ans 96 ba léegi maa ngi fa. maa comptabilité ak gestion entreprise. moo tax nag loolu nag doxal. ak ah, ko ci Daaru pour jéem ci fexeel ni ñu defaree koñ ba. ànd koo defar ak doomu jaar nga ci ba toll tey ba ak sa fi nga ak si tey mhm. Mhm. waaw jaar jaar bi mooy a may nekk ci entreprise boobu nekkoon naa ci boulangerie Cheikh Ahmed Tidiane si benn tàq la police mhm. ba 94 nekkoon waaw sama maam joobu mu génn àdduna ci laa doog a ñëw ci entreprise boobu nekk musante parce que am na solo bu baax a baax macha allah. Mm. Euh, mais mais mais tey euh, nga nekk ci li nga xam ne mooy association bi ñuy wax ànd defar Daaru Salaam. nga mm. ñëw dëkk fa. Mm. comme ni nga ko waxee léegi. Euh, lan moo waral ànd defar Daaru Salaam Daaru Salaam dafa defarul wala <laughs> lu tax. lenn rek la uh-huh. Daaru Salaam. Uh-huh. tur wi daf ko wuyu. dëkku jàmm. Uh-huh. salaam jàmm la. waaw bu nekkee dëkku jàmm. ñu baaxale ko askane ko dëkk kon bon. tax sa boo ko jëlee lu ko yóbbu ma daaru salaam du la yóbbu mhm. ndax yaakaar ni ay fàqamaan dafa nekk ay rey continue dafa nekk te tënk sël na loolu kaa bi ñu mhm. ko fay def sax di fay def naka suñu noonu dëkkuñu fa tey rek firnde la ci waaw tey am na ñu sàccoon ay bagages batterie yi nga xam ne solaire la denc ko benn kër gu àggul te mhm. daaru salaam soxna si jaay nit ki foofu moo ko gis gars yi ñëw doon ko jël si yore seen jakarta mu leen li ngeen wut fii fekk ñu woo benn sare war koo jël ñu ko dañuy yóbbu batterie yi mën ñu nekk association bi nekk nga xam ne dañoo am récépissé dem ba ci préfet. Mhm. préfet recommandé ñu commissariat yi. Mhm. recommandé ñu maire bi. Mhm. nga xam am ñoom bu la wooy ñu ngi leen. ci la ñu wooy commissariat central l' inspecteur Ndiéguène l' inspecteur loolu Euh, Camara. waaw ah. ak euh, adjoint bi. adjoint bi seen seet yëpp. Mhm. yàlla def ñoom ñëpp ñu wàcc si fa ci tàng tàng bi. Mhm. ñoo jël bagage yi yóbbu ko central te loolu association ko def te mhm. ñooñu xam ne dëkkuñu ci koñ bi. léegi ñu bëgg nag defar koñ bi bëgg taaru salaam. yow animateur bu la neexul fa kër. jàmm fa kenn du fa def nekk su dul loolu. daaru salaam loolu waral na itam làmp ñu fexe ba def ko fa. te ñoom ñett yi yonent bi danaa wax na nga ko fonk. waaw ñett yi ñetti tàng yi tàngoo bu jëkk bi mooy. Mhm. dëkk na am ndox. bu mu bay mhm. ndax mu wante def faju dëkk na am leer muy làmp. dëkk na nit ñi lekk ba suur naan demande te itam ñett yooyu. Mhm. moom la ñu bëgg Daaru Salaam te daanaka am na fa. moo waral loolu nag li ñu xeex pour ñu am. tey rek suba maa moom yóge mairie pour doon toppatoo ji loolu loolu mo ñu tax pour defar Daaru Salaam pour ñëpp nekk benn mm-hmm. war ko fofu mm-hmm. euh, xana di koy gën a wat ci walu lu suñu borom wax rek ya yaa wat nas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaaa'ila litaarrafuu inna akramakum inda llaahi atqaakum nous avons créé un homme et une femme pour que vous en connaissiez mais le plus noble entre vous est celui qui est le plus pur yàlla nee na maa leen bind ñi nekk séeréer ñi nekk tukulóor ñi ñuul ñi xees ñi gàtt ñi njool mhm. ñi xeet gu ne am fi ñi nekk japonais ñi nekk suwa man yàlla loolu soxal na ma xam nga ma soxal mhm. borom xol bu sell xol bu sell boobu la liñ bëgg mu nekk dem rek def na benn conférence suñu waa ji le conducteur d'homme mhm. l'éminent guide Khadim Sam organisé ko nga xam social rek lay def dañ fa daje ñoo ñëpp fa daje ah. murit yi way pare jox tijaan way waaye ah. jox xaadir way ibaad yooyu ñëpp nekk fa ñu ngi am benn communion pour lan defar daaru salaam kon nag daaru salaam jàmm fa am hmm. jàmm sa xéewal fa am dañuy dem lente di jëkkalante di dimbalante bu naqar amee tey am nag suñu benn waay boo xam ni euh, rakk jabaram moo gën a àdduna ah. mais dañoo dem def délégation seetu ko ndax naqar bu ko ñëpp soo mooy ah, maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy wax loolu wallaahi dëgg lu baax itam bu ñu xëccoo mu diis hmm. moo tax itam ñu booloo nekk benn jàppalante diisante sottante xalaat pour lan pour defar kon ba rek loolu rek moo ñu tax a jóg ah hmm. loolu itam bëgg woon ne de marque de Daaru Salaam hmm. wax ñu ko terminer ko ko terminer ba dara nekk fu lu jàmm kon su ma la déggee Daaru Salaam ñi nga xam ne ñoo fan ñëw ñu yàlla ñu koy bëgg yàq mooy ñi nga xam ne dañ faa wàll si wàll yaan wàllu yaan ñoo koy yàq si mhm. mais jàmm fa am mhm. nit ñi dañoo nekk benn ñu góor ñi jigéen nag ndaw ñi fukki jàkk ak juróom benn fa nekk doo ñeenti jumaa mais imam yëpp benn loon mhm. jumaa bu la teex jullee dafa am benn problème loolu nag lañ bëgg insécurité boobu moom moo tax ñu taxaw fa ah. ba ñun ñii ñoo fay taxaw ba lépp loo xam ne dafa nar a indi insécurité ci a làmp yi ñu bëgg mu leer nañ ñu bëgg nit ñi am aafiya taxi boo nu yóbbu ma daaru sax mu soxal mu sawar pour ñëw foofu waaye daal li tënk wóor na Saliou Niane bi ña fay yàq lépp ñu jàpp leen fa la ñu soupçonné leen fa. Hmm. ko ñu kon. d'accord. am na solo bu baax a baax mbokk yi ni ngi noonu dégg ngeen kàddu yi am solo yooyu nga xam ni moom président Cheikh Ahmed Tidiane Niang moo jiite ASC defar daaru euh, li nga xam ne mooy association euh, am solo yi nga xam ne mi ngi koy def ak message bi mu am important bi nga xam ne mi ngi koy lancé ci li nga xam ni jëm ci euh, gox boobu mu nga xam ne mooy daaru salaam nga xam ne bàctile boo xam ne am solo bu am njëriñ la fi ñu dëkk muy Thiès alors je me tourne à vous président Saliou tey gis la yow nga bokk ca gox ba dëkk fa waaye tey yow nga jiite ñi nga xam ne mooy euh, ñu nekk ci wàllu mécanicien yeeg yooyu tey euh, ngeen am organisation euh, tey boo mënoon wax ci mécanique bi ak li nga xam ni bu yàggul gis nañu président Macky Sall daal di inauguré fële ca Diamniadio hmm. Zampa bi je pense ci li nga xam ne wàllu wàllu mécanique maanaam parc li nga xam ne am na foofu ak le ministre de l'artisanat di nekk Thiès hmm. j'imagine que yéen nga ko ak sa mbokk mécanicien yi organisé wu ngeen war cee mën a am ay wàllu normalement hmm. tey naka la demee seen milieu nga xam ni dafa nekk milieu bu waaw ñu ngi leen di nuyuwaat comme ni ñu ko commencé woon euh, maa ngi tudd Saliou Niane nekk gaaru Thiel. waaw ci Thiès. bokk ci association bu ñu wax Revaas yor organisation Revaas. waaw ànd ci ak Naar Ndiaye. maa ngi koy nuyu di nuyu président Ousmane Sow Malaw. di ko baax di nuyu euh, secrétaire général Abdou Aziz Ousmane Kane trésorier yooyu ñun bi ñu ma dugal ko kenn ku ne tey yaa ngi may woo. di ma encouragé di ma ci ñaanal vraiment. waaw ñun nag ñu mm. ngi sant bu baax a baax président de la République. parce que xëy na nit sax bu defee koy sant parce que dafa am ñu fi jaar mm. te xëy na lim ñu defal mos ñu woon gis benn président defal ñu ko wax dëgg fa yàlla waaw seen pa bi ni tey kew maa nga fa woon mm-hmm. maa ngi toog ci ginnaaw président bokk nañ ci invité yi nga xamante ni ñu nga fa woon mm-hmm. donc yooyu dafa baax tey dañu gis ni président de la ba mu fi ñëwee ba tey depuis 2012 yooyu ah. ñëw bu ñu ñëwee daf moo jàppale artisan yi formation yi nga xamante ni mi ngi am mosuñu ko woon am te léegi ñu ngi am ay formation yu baax ci suñuy ndaw léegi jamono moo toll foofu actuellement ñun ba ñuy jàng métier. Mm-hmm. defe naa ni 83 ren dugg ci métier ni mm-hmm. boobaa léegi mat na 40 ans ñu ne ci la amoon bu njëkk amatul. Mm-hmm. bu njëkk soo jëndee moteur sax da nga ko daan tas réviser ko doog ko monté. léegi boo jëndee moteur da nga ko jël teg ko noonu liggéey bi amoon bu njëkk moo gën a assuré moo gën a wér. léegi liggéey bi am liggéey technique la. boo deful ay formation am ay diplôme. waaw ah. mënuloo ci réussir. tey maa ngi jégu sama mbokki mécanicien oto yu bari yuy paan yàqu ñun ñoo ko yàq parce que dañuy ñëw di ko defar te jànguñu ko muy am léegi mënu nekk mënoo ñëw jàngoo hmm. jàngoo bëgg a taw yi moom mënu nekk hmm. kon donc ñu leen di ñaax ak suñuy xaw ndaw yi nga xamante ni leen man sam naa sama doom yaa dama leen dugal formation hmm. ko jënti ba loolu am ci ah, pour mu jaar ko def parce que boo bëggee jàng métier bëgg ci ja am loo xam da koy jariñoo doo tàngal ki nga xamante ni moo jënd otom mu seer ñëw nga ni ko mën naa koo defal ba pare ko ko ko wala bu ñu ko bëggee mu daj il faut ñu demaat jàngiwaat métier parce que métier ma amoon ci ñun. Ah. léegi amul mais mais léegi li ngay wax dafa am solo métier bi euh, métier bi léegi dafa gën a performant ah, parce que tey boo xoolee oto yi mm-hmm. jóge bitim réew di fi ñëw fi Sénégal mm-hmm. nekk na oto yoo xam ni euh, dafa sophistiqué technique bi ci nekk mm-hmm. est que tamit a euh, a améliorer pour yi nga xam ne parfois ay machine wala ay ordinateur ñoo koy réparer pour xam panne bi fan la nekk est que loolu yéen ngi koy bàyyi xel ci ay capacitation dafa jàpp secteur informel bi am na ci doole bu baax a baax c'est plus de onze millions waaw parce que donc bu fekkee dañ président def na ay formation boole ñoog DER boole ñoog 3MP euh, 3FPT ah. yooyu yëpp bëgg na xale yi dem jàngi mm-hmm. bëgg na xale yi ñu jariñu après mais a dëgër dañuy xalaat li ñëw suba waaw man samay njaboot bàyyi dama ni leen dama leen ngeen def formation mm-hmm. ñuy dem di jàng mais à votre niveau par exemple yow mi nga xam ne dugg ci métier bi en 83 mm-hmm. ak sa morom yi xam dugg nañ ci après 83 wala euh, avant 83 mhm. est-ce que yéen euh, def capacitation yooyu maanaam di di xool am yo oto yoo bitim réew la jóge te pour nga xam panne bi foo nga utiliser yenn machine wala am nga foo nga am yenn matériel yu sophistiqué est-ce que yéen koy bàyyi man xam man moom oto yi may liggéey mhm. du oto oto ya, daanaka mën naa ancien modèle mhm. comme ay j camion yi ak ay super yooyu oto yooyu daanaka jaww yenn formation yi te formation day am xam da koy ci yow donc ak yi nga ci nekk ñoom mhm. la ñu jël doon yóbbu ñu defi formation pour après a mhm. euh, ma bàyyi bi ma sama doom jënd woon mhm. da ngay gis koo xam ma ah. ko bi bi mu ñëwee taxaw def ci sax 20 minutes machine boo ko décoosé boîte automatique <laughs> mais mais loolu day gën a firndeel li nga xam ne mooy tey euh, war nañu ñu gën a màccal xam-xam gi ci wàllum ku ci bëggee jëriñu ku ci bëgg a da a di nga am amee àq boobu oto yi surtout alors euh, li nga xam ne mooy euh, a ngi ci euh, mm-hmm. naka demee naka am naka mu jot yéen a ngi def ay li nga xam ne mooy dépannage ci mm-hmm. gàmmu yeeg màggal yi naka ngeen organisé ba loolu mën a yomb ci askan wi tey te du ngeen laaj dërëm. waaw xam nga mhm. def dépendance gratuite. bi koy def dépendance koy def dañ nit ñi dañoo jëlee añ seen kër ñu andi ko di teg su añ jotee dañ koy jël suñu kër ñëw teg. bokk ko ñu tout point yi xam dañu doon voyagé ñëw seen oto ah. ba yàlla def ñu dem ba léegi ñu jënd suñu bopp ay nag di bokk mais nag am na ñu ciy jàppale. bu dëgg am na ñoo xamante ni vraiment dañu di tàggatoo waxoo ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax. Mm-hmm. mën a cité ko demee ni ko ay Abdoulaye Dièye ministre mm-hmm. docteur Ndiaye Pa Amadou mm-hmm. ñoo xam dañuy dem seeti leen ak ah. ay bonne yoo xam ne ci dëkk bi ku mel ne Xaadim Samb amul at mu yëkkati woon enveloppe bu di jàpp bu ñëwee seet si Babacar Diop ren dañuy lii ngeen di def. Hmm. yéen yéen a yaayoo ndimbal. ndimbal ndimbal yi maire yi war di génne di dafa am parce que yéen du ngeen dem hmm. màggal. Hmm. du ngeen xam lu màggal gi di saf. du ngeen xam lu gàmm gi di saf. xanaa peut-être ah, a ah, a moo ñuy dawee mu ñaanal ñu te daf ñuy mas di wax ni. xaw ko amul màggal ñu yéen am yéen. waaw ah waaw dafa ko mas vraiment kon nag ñuy wax ni ñëpp dañ ñëw jàpp ci te xam ne weebaas nekkul fi kenn askan la fa nekkal d'accord waaw d'accord am na solo bu baax a baax président Saliou Niane moom mi nga xam ne moo jiite waa Revas rawat na fii ci euh, li nga xam ne mooy Thiès euh, président Cheikh Yane mhm. mu tourné wu ci yow ci li nga xam ne mooy waxtaan wi parce que gis nañu ne euh, waxtaan wi solo lool mhm. vraiment mais tey yow ca gox ba nga dëkk mhm. gis nañu ne li nga xam ne mooy chef de quartier bi boobaag léegi gisuñu koñ ba am chef de quartier te ñu ngi ci jëm ci wàllum chef de quartier

waaw moom de xanaa ñaari baat yi wolof di wax rek. Mhm. jege gaaraas. jege gaaraas taxut la de. <laughs> jege seeraas. taxut am yàpp déedéet. xanaa dégg nekk président association bi. Mhm. taxul sax xëy na ñu ñu chef de quartier la. Mhm. waaye nag waa commune bëgg nañ ko. ba ni man suñu sañoon nga nekkal ñu suñu Sénégal am na ñu ko wax. waaye nag loolu nekkul ñu man ma nga nekk ca mairie ba naan ñooy tànn. Euh, mhm. maire bi vraiment. am nañ ci ñoom relation. maire Thiès maire Thiès S. bu ñu xam Ousmane Diagne jiite. effectivement ak l' excellent euh, mhm. mhm. vraiment di efficacement le tout dans le yooyu itam nit ñu am solo la. ah déposé nañ la comme ñëpp waaye waxuñu ñun lay doon ndax doon nit ak mat nit bokkuñu. maanaam fal leen naa kaa ñu fal la bokkul. mat nit. waaw nit lay doon. doon nit da nga koy doon waaye nekkoo li meen entre un patron et un chef un chef donne des mhm. patron écoute ses employés mhm. ki écoute ne di déglu mhm. kooku moo gën a war a mën a jëf ndax damay joxe exemple seen kilifa gi taw waaw bi ñu ñëwee mu wax ñu mooy seen waa xoolal ma lii dama ko delluwaat si Sidna Omar waaw gis fekkee ci buntu ba uh-huh. te am lu ñu koy wax pour bëgg ko ñu faj ko ci dëkk bi mu fekkoon Sidna Omar suulu ci dëkk bi mun ko sëñ naa wax man laa soxla mm-hmm. man dama am lu ma koy seet mun mm-hmm. ko sëñ naa woon ci biir dëkk mu dem ñëw xam mu oyofam rek gis commission ba ak maanaam bu fi mu ne bureau la mu ñëw man ne sëñ naa wax man laay laajte ndax dafa am lu ma ko bëgg a daawaan ñu ko am na xoor mu ci buntu ba toog ci suufu garab ba kooku mooy Seydina Omar. te mooy effacement nit ki. bu la yëkkatee ba ca kaw wàcce ci mm-hmm. suuf. ndax yàlla neen boo dee yëkkati sa bopp ci kaw. ma mm-hmm. wàcce la ci suuf ma wàccee sa suuf ma yëgale ci kaw. waaye ñun daal foofu lañ toll. Mm-hmm. waaye daal lépp loo xam ne defar koñ ba. lépp loo xam ne day indi jàmm ci koñ ba. lépp loo xam mar doot fa amati. xiif doot fa amati. Mhm. insécurité doot fa amati. Mhm. ñun bu ànd nañ ci loolu pour mu ànd ci bu nekk tey. kon tey devant l' écran mën naa jàpp ne. Ah. président Cheikh Ahmed Tidiane mhm. moom déposé na candidature am. pour jiite li nga xam ne mooy gox Daaru Salaam bi. def incha allah bëgg nañ ko def. ndax tam li ñu nekk daal. jaaykatu marsa ambulant boo gis. waaw ah. magasin nekk ba. nekk ci xol ba c' est vrai. c'est important loolu tax mu wax la ñaari baat yi. ñu commencé waat. d' accord waaw ñaari baat yooyu nag. cax la. waaw mën na àgg. waaw Ndiogou Diarra tey tey à vous entendre parler su ma la déggee ngay wax. Mhm. dafa mel ni président Ndiame Tidiane am na yéene bu am solo mu yaatu lool pour Darou Salaam bi mu dëkk. yéen su ma sañoon. Mhm. Darou Salaam moo yoroon ci koñ. Cheikh Ahmed Tidiane nag maam sëñ Touba mhm. concurrence loyale. loyale c'est important. suñu seen Daaru Salaam mooy quartier lumière meilleur quartier. Mhm. excellence dans les écoles bu dee primaire bi entrant sixième ëpp fa bu dee secondaire bi la même chose. Mhm. bu dee cadre yi ëpp fa bu dee góor ñu baax ñu ëpp fa imaam yi mu ëpp fa jigéen ñu baax ñu ëpp fa. Mhm. jàmm am fa kan wuyu turam dëkku jàmm. bu ñu seen moo fi nekk premier quartier du Sénégal. waxuma la ci Daaru Salaam yem ci Thiès. Sénégal laa wax. le premier quartier bu ñuy joxe exemple. Mhm. prix d' excellence su ñu ko dee joxe ñu jox ko Daaru Salaam. ndax Daaru Salaam mérite du sens ci ñoom mais mérite la ci ñoom. macha allah am na solo bu baax c'est important ñu ngi noonu euh, dégg ngeen ko président si Ahmed Tidiane ñun euh, ci kàddu yi am solo yooyu alors président Saliou Niane mm. euh, tey yow Darou Salam nga bëgg déjà yaa ngi yëngu ci ci ci lay gis yaa ngi yëngu ci wàllum politique bi am na ci ñooy àndal du ñàkk parce que ñu ngi la ciy dégg ñu ngi ci fort ci yooyu bëri mais yaa ngi yëngu ci politique xëy na sax peut-être euh, defee woo ko comme ni ko ñu bëri di defee xam politique bi nga xam ne dafa doy waar lool mhm. mais gis nañu yaa ngi amal njëriñ ñi nga xam ne te sa sa waa gox tey euh, Saliou Niane ci ci wan woor ci wan boor la nekk ci politique bi di ci yëngu ñu day te doomu daaw salaam lañu mhm. comme ni ko président waxee rek bu ñu sañoon tam dëkk bi ñu dëkk mhm. am na fu ñu ko fekkoon mais am na fu ñu ko yóbbu tam mhm. daaw salaam am na fu ñu ko fekkoon mais am na fu ñu ko yóbbu te bëgg nañu tamit mu egg foo xamante ni fu ñëpp di kenn ku ne président wax na ko saa ne boo bëggee kër ñëw jënd dëkk waaw daaw salaam moom actuellement nit ñi nag ñu ngi wax am na ñu ah. wax daaw saa am nañu ko ñu wëyu daaw ko ñu ki noonu mm. mais mi bu baax a baax a baax mm. te ñun ñu ngi ciy def ay jéego ndax ànd dafa daaw man vice président ci moom président man ci mm-hmm. waaw donc ñu wax ni politique bu ñu koy def defuñu ko pour suñu intérêt ñun waaw ah. dañu def ni xam ne pour ñu bëggee suñu kon jëm ci kanam mm. dañuy xool ay nit ñu mel ni nit ñi nga xamante ni ñoo doon dëkkal kenn ki nga mën a cité di ko wax avant may dem feneen damay bay sarawu tàng muy xaadim sàmm xaadim sàmm waaw ñun ñoo dëkk ñun ak moom muy def lu baax ba ki démb conférence bi ngeen wax tàkkusaanu Seydina Mouhamad mhm. moom lañ ko pagane ak man ñu ànd ànd ak président ñun ñëpp ñu bokk dem mhm. boo dëkkee ci kon nag lu ñuy yëkkati ci lu baax ñu boole la ci da a sant yàlla te war a gën a góorgóorlu te ñu gis ko mu def ci conférence bi loo xamante nii ñu ñi nga xam ne ñoo organisé conférence sax ah. vraiment dañu am mbetteel ba ngeen xool kii kii yënguwee baas baas bi gën a say xol. waaw gis mu fay ko. mu jël enveloppe bu mag boole ko ci ñëw joxe ko. Mhm. waaw ñu àndandoo ma ne ko kat mu ma woo sax moom ci boppam ci oyofam ni ma ah comme dañ ñu tudde bis bi ñoo ko bokk nañu àndandoo dajawoo lu ñuy def dañu ñëw sa kër wala dañu mën ko bàyyi ñu ñëw sa kër ma ànd ak mbooloo ma ànd ak samay soxna ak sama waa ko nekk samay dem ànd ak moom ñu ànd dem ci conférence bi. vraiment ànd ci ba ba mu àgg mu dem ba amaat beneen bis boo xam ne dañ ko cee boole woon tam moo faa dem mu bataye ñu ak président si na Tidiane jox ko kàddu yi vraiment mu jëf ay kàddu yu rafet ci xaadim ñu ñi boobu ñi organisé woon tamit vraiment am na kàddu yoo xamante ne wax nañ ko ci ñun mm-hmm. ñun góorgóorlu dong moo wal mais wutuñu ci benn intérêt boo xam ne suñu bopp tamit gis ku ni Abdoulaye Dieye Abdoulaye Dieye di nitu social mu yàgg am ay jafe-jafe mu fajal ñu ko ñun waa Daaru Salaam parce que boo nekkee ci équipe bu nawetaan yow équipe bu nawetaan di ci dund dem ba egg fenn fi am soxla équipement demoon nañ ba final. Mhm. ànd deux ah waaw maa ko njëkk a yóbbu final loolu yàlla ci mën na ko jaarale. d' accord bu président jaar na fa ma ñëw mais man ma yàlla def maa ko njëkk a yóbbu équipe bi final ko coupe cadet sañoon yóbbu année boobu yóbbu cadet final départemental euh, final régional. Mhm. donc loolu moom ñu ci sant yàlla bu baax. Mhm. mais dañ ci gis ni. ku mel ni Xaadim Samb keek loisir yi nga xamante ni moom lañ sol moo ko jënd te avant ñu egg final daf ni match bu ngeen am. ma ko match bu ñu am damay yabal kenn mu bind segam. kon suñu la déggee Xaadim Samb dëkk na ci gox bi mais ñu ngi def aussi ci gox bi. bu baax bu baax a baax. ñu demaat am nag Abdoulaye Dieye mhm. ñu ñëw moo dem final ma dem ci moom ñu gis ko Alioune Ndiaye boo ñëw moom vraiment mu jox ñu ay équipement. Mhm. mu dem fu football équipement cadet sañool mu gañe ko kon dañ koy sante ñëw këram indi ko coupe bi fekk ñu ko fa mu joxaat ñu rendez-vous Dakar ñu dem fekk ko fa maak président ñoo àndoon yóbbu coupe bi mm. bu ñu dem vraiment mu defal ñu ay tamit ay tranga boobu ba tey nag tegguwu tànkam xam nga Thiès boo fi nekkee da gis ñi nga xam ne dañu amal njëriñ dëkk bi nit kenn du ko rekk kenn du ko naan njëriñ la leen koy doy Abdoulaye Dieye dafa amal Thiès njëriñ tey bu ñu amoon keneen ku mel ni moom rek waxuma ñaar ba ñett keneen mm-hmm. kenn nga équipe ASC bu ne chaque année nga jox ko équipement ñu dem final kenn ku ne nga jox ko enveloppe 100 francs ñaata million la mm-hmm. xoolal yi mu def tey ci gi passé mm-hmm. 29 jours. waaw ñu tegal ko togg ay ndog jëm ci daara yi. Mhm. dem fu ne dem de ba de de dem damaa ñëw damaa lu ma bett moom Aliou Ndiaye waaw wa tax moom wax pour ma ñëw jëlsi ko. Mhm. ma ñëw fay dem sees ba mu ñu ñu ngi kër Abdoulaye Dieng ma dem kër Abdoulaye Dieng fekk ko mais ni ma fekkee Abdoulaye Dieng xamul sax Abdoulaye Dieng noonu la mel. moom muy kaf di ree di kii ak gars yi man dama noonu damaa mujj sax man dama yéemu bi ma egsee la nag saa yu nag ñu mhm. mhm. am na ñoo xamante ne avant xam mu avant muy am poste mu ngi def ñu dem même ñoo xam bu yenn poste yu ndaw rek mhm. changé nañu commencé woon mel ah. noonu ñi ñu xamoon sax dootu ñu woon xam <laughs> bëri na mais mais naka nga gisee politique bi fii ah, au Sénégal rawatina fii nga dëkk muy Thiès tey waaw man li fi am wax dëgg fa yàlla dama koy ñaaw parce que tamit mhm. bon bu ñu nekkee ci politique mhm. kenn ku ne da ngaa war a respecter sa bopp parce que am na ñoo xam tey jii bu fekkee dañuy am problème justice mhm. man pour man sama waayu bopp da nga dem wujji justice da nga ne dañ te ñun ñoo xonaa dañuy soxla pour ñu woo leen na gis a gaaw ñu woo man daal ànduma ci parce que tamit ku jur ku ne di yërëm xale yi ñi ñu nekk nii ku ku am njaboot di nga yërëm man damay togg ci yàlla damay yëgal xale yi parce que damay xam ni ñu ngi dem mais xëy na li ñu wax naan ay semence la ñu daal. Mhm. parce que ci li ñuy dem xamuñu ko sax. Mhm. donc daal ñu ngi koy ñaaw bu baax a baax a baax. ndax suñuy doom a ci yow suñuy njaboot kees ñun ñoo ko bokk. kenn ko ne bu sa doom demul sa mbokk dem na.

tey ci li nga xam ni mën nga àndal. Mhm. ak ci candidature bi nga xam ni yaa ngi koy prôné euh, tey kañ la vote bi ak naka lay demee exactement suñu mënoon xam pour li nga xam ne mooy kan mooy doon chef de quartier donte xam naa ne sax yow nekkul ci yow peut-être benn om benn benn benn omnibulation mais néanmoins mhm. tey. nit buy dox yenn yenn yenn mbir yi ci gox. Mhm. Euh, jàpp naa ni tey il serait plus légitime et plus mhm. légal. Mhm. que que ñu def la loolu. nga nga mën a gën a xeex li nga xam ne mooy tawatu euh, gox boobu nga dëkk. waaw loolu moom dëgg la mais kay la. ak fan la naka lañ koy defee. kooku xaw naa ko ignoré. d'accord ndax loolu tam comme que dañu rek déposer seen candidature. waaw après daan leen convoqué yéen def confrontation ci yéen. ngeen def seen pétition. yóbbaale dossier yi nga xam moo war a dem yóbbu ko mhm. su paree nag koñ ba ak gox ba ñooy tànn mais su la tutelle de la mairie nag ah, nit ñi peut-être enquête de moralité yi ñuy def ah. peut-être ki la ñu mën a xamee kii kan la kii lan la mhm. anaa anaa nag lay souvent man la man la du du ah, man la man la du yow. il ay saabu la ay saabu ñoom ñoo la naan kii la ñoo xam ne kooku la boobaa nañu xam ni kooku moom far jiite ku yàlla dëgg war a daal mhm. te mu wóor néew mi la mhm. kii bu ko yoree mhm. li waa gox bi daan ko bëgg muy man wala ñeneen ci kër candidat yi koo te gën ca kon ba yàlla xam ku gën ki yàlla yàlla jox ñu ku gën ca kon que mu doon yow que mu bañ a doon yow quelle serait la réaction de monsieur Cheikh Ahmed Tidiane man li ma wax léegi fi nekk ku mën a doon mu doon man muy doon keneen boobaa damay ànd moom liggéey nga xam ne yàlla xëy na mooy fal doomu mm-hmm. aadama fal dangay mm-hmm. eh, déglu leen jàmm la rek nga moom la yeneen ti waxoon waaw mu demee di wax gars yi dugg leen ci jullit mm-hmm. dugg leen dugg leen dugg leen suñu borom def na ko la saalan di mu saytu ilaa man tawala yooyu eh, dafal nank mooy moom nit ñi fi ma la jaarale ba nga nekk jaarale fa doomu aadama wallaay dëgg la seen <laughs> juumaat am invitation woo ay nit ñëpp toog berni benn si la xam dugg mu lu téye leen ko yàlla na ko yee eh, taxawal abasa wa tawala an jaam ahma yow doo seexlu doomu aadama médecin war naa seexlu daal feebar lu mu tilim tilim boo koy laal moo tax bu lu weex bi lu góor bi puri puri da koy jël mhm. lu waa xeeñ xeeñ day dëkk ko ah parce que le soir ne se discute pas mhm. ku tànn gëmm man te bu ñu tànnee boobaa ma gëmm ànd ak kooku mhm. ku mënta doon yàlla nekk koo xam ni moo gën ca gox d'accord c'est important sëñ ma jeexal politique am na mais le politicien benn philosophe wax na ko le politicien est ignoble il se profite uniquement de la disponibilité de ses électeurs pour se faire en nom. politicien disponibilité électeur am rek la war a. Mais il y a un bon temps de faire mais que c'est jàngat ngay def ci a ci wàllum landeenu politique bi ak fi ñu toll tey. landeenu politique bi mais nguur ne ko. pas fii day jeex. te de war ñu koy def lu dul jeex. su ëllëgee de guerre. fu dul te mooy def lu baax te bul see bu ñu benn xalaat ak benn dëgg-dégg rek garabu fitna ku ko ji doo ci féetlu dama garabu fitna ku ko ji doo kan ne kenn ku ne bu xamee ni dañ nekk xam nga lan moo du dëgg la de ancien ministre. Uh-huh. ancien DG. Uh-huh. ancien enseignant. Uh-huh. ancien mécanicien. ancien chef de quartier. yëpp yëpp am na am na. mais ancien sëriñ Tidiane si. déedéet ancien si Abdou Lahad Mbacké Mbacké. déedéet déedéet loolu lu tax ko waral. dafa am ñaar yu am. dund ak siiw. dund ak siiw. siiw. bu moment bi ñëwee rek xam ko. le 11 mai Bob Marley la. dafa siiwoon. waaw bu 11 mai bi ñu ñëwee rek. ñëpp siiwalaat. ñu ne Bob Marley. su paree ñu fàtte ko. dund nag da ngay dem ba pare te nekk fi. Mhm. mas ngaa gis Sëñ Babacar Si. Mhm. teg ko ko bët. Sëñ Fallou Mbacke mas nga ko teg bët. maam Abdoulaye Niass mas nga ko teg bët. te fu ñu ko tuddee nga fekk su. ñoo dund dundee dañoo dundal. ñu dundal ñoo fi nekk ba tey <laughs> kon loolu mooy jàmm est que am na solo baax a baax vraiment euh, suñu waxtu bi nga xam jëm ci jeex waaye si ma tourné woo ci yow président euh, Saliou ñaan ci taxawaay bi ak ci li nga xam ne mooy mbébét bi nga xam ni am nga ko ci ci ci ci wàllum milieu euh, politique bi euh, wàllu milieu aussi revanche bi nga xam ne ñoom nga àndal aussi ak yéene yi nga xam ne aussi am nga ko ndax daaru sax am nga bokk nga fekk baax tamit tey boo ñu ko doon wax lan la exactement ak message bi ngay lancé. message bi may lancé daal mooy waa Thiès di wax ni revanche. ñëpp mhm. la fi nekkal. nekkoo fi waa Thiès kese mhm. Sénégal yëpp la fi nekkal mhm. tey booy dem Touba mhm. booy foo jóge yoonu Dakar boo paanee ñu ñooy taal suñu oto nga ko indi boo indee ay client oto bi gën a yàpp yàpp ci ay client moo fa añ fekkee ñoo koy jox nga añ fa bokkee ñoo koy jox nga reer bu wépp weertu ndékki ñoo koy jox donc liggéey yi nekk Thiès. waaw ah. gën a gestuwaat Rebaas di ko jàppale. Hmm. parce que tamit Rebaas. waaw nañ njëriñ est-ce que Rebaas tamit ñu ngi dem ci vers ñoom fi ñu seeti autorité yi. nga xamante ne xam wax nañu wax nañ ca xam nañ seen bopp. Hmm. nañ ciy jàpp te yàlla dong dong moo tax Rebaas ñu di ko def c'est important parce que bàyyi sa kër mhm. bàyyi sa njaboot waroon na dem Touba daan dem Touba di mbégti comme ñëpp mhm. nga bàyyi yëpp ñëw toog di fanaan ci mbedd di yendu ci ay mbedd ci naaj bi mhm. ñu taw te ba tooy xet kooku ku koy def te yàlla dong tax nit bu ñoo jëlee am ñoo xam dañu jël xaalis sax sànni ko ko ko ay meew ataay faa jël cent franc nit parce que loolu taxul ñu koy def yàlla dong tax ñu koy def kon loolu moom mu ngi ciy woon ñëpp daaw salaam fa laa dëkk mhm. fa laa màgge yi bokk fa nekk ak samay njaboot ñu juddoo fa màgg fa man moom kër sëñ Ablaye Yakhine fa dëkkoon ba tey tamit fa ma dëkkoon maa ngi fa ba tey dama ci jàpp bokk naa fa ci association ba fa nekk ci doomu mhm. bi fa laa bokk mhm. yow fa ay ndombay tànk nekk daaw salaam yow fa ay ni ma nekkee woon kër sëñ Ablaye Yakhine la ñëw liggéey kon tamit ñoom ñëpp nam ñu ci sant léegi suñu rakk nag moo ko yor Demba Diallo hmm. buñ ànd ak moom tam di ko jàppale parce que moom buñ ci masaana da ciy hmm. hmm. a kawe allah nga tàggatoo ndax wax ci bi xëcc na jëm ci jeex daa waaw alhamdulilah waaw neex na trop waaw émission bi neex na trop xam naa ni bu ko nit ñi seetaanee dañ ko apprécier waaw yéen tam ñu leen di sant bu baax mhm. sa fa amu amuñu seen fay ñu ko waxee ñu woo ñëpp daal ñu ñëw jàpp ci ASC e bi mhm. te xam ne ASC e bi fu daaw saam toog mhm. e sama njaboot sama waa kër samay soxna sama waa dëkkandoo yi ñëpp ñu leen di bu baax di leen sant di leen tam ni dimanche bi ñëw le 21 man ak Xaadim Samb tam ñooy pare ci tàkkusaanu suñu Babacar bi am foofu vraiment ci seen seen ah, ñu ñooy ñu waaw sàmm ngi noonu ñu ngeen ko yëgal bu baax incha allah xaadim sàmm ñun tamit ñoo nekk point boo dëkkee koñ nag vraiment mm-hmm. ñu ñu yëga ba teg yoo xamante ne sax yow da yéemu mm-hmm. vraiment da war a gën a góorgóorlu daal c'est important waaw ñu ngi ñaax ñëpp di nuyu sama yaay ñu mm-hmm. tamit njaboot gi yëpp daal ñu ngi di nuyu di nuyu waa gépp revar sam la 27 dañu war a def Popenguine Arabas gàttu le 27. waaw te dañu incha allah. d'accord waaw ñu ngi ciy waajal bu baax a baax a baax. d'accord ñun wet la ñuy def. d'accord bu ko génn gàmmu. macha yëpp ah. c'est important vraiment dañu dañ koy def waaw. Mhm. kasaas yëpp yëpp dañuy dem. d'accord jërëjëf waaw président am na solo bu a baax macha allah ci kàddu yu am yooyu nga xam ne moom la tëjee vraiment euh, président Saliou Niane yi nga xam ne moo jiite waa REVAS waaye aussi nekk nit ku am taxawaay nekk la ñu dalaloon ci émission bi nga xam ne mooy mise au point waaye aussi ki nga xam ne aussi mooy monsieur Cheikh Ahmed tamit jiite association bi nga xam ne mooy ànd defar Daaru Salaam moom tamit président euh, ban message ngay lancé ak lan ngay tàggoo ci waxtu bi message bi ñu lancé daal ñu koy commencé ci yéen ndax bu doon yéen du duñu mën a génn li ñu nekk suñu dënd ba ñu jël ko yëg am mhm. di leen ñaan fan bu gudd ak wér mhm. li leen yóob yàlla nañ ko jot amiin yaa rabbal aalamiin lu na jóge amiin yaa rabbal aalamiin na oyof bu leen gis kanam li ma doon wax ci yorante bi di joxe nag ay exemple ci adda sawa tawale ak la sa alayhim mhm. dama wax ne negam gën gi mbindéef la suñu borom daan jubbanti waxuma leen parce que benn kilifa bu mag dafay nekk ñu man dootuma juum ñu ko lu tax mu yeneen tamit dafa gagné 6600 ay 666 114 suraat sa ay kii rek si la borom rectifié man nag foofu laa basé wu moo tax man dootuma ji ba ca des mooy di nuyu imaamu koñ ba imaam Sall ak mbooloo ma ca jàkk yëpp ak jàkkee Daaru yi 16 mhm. yëpp maa ngi leen nuyu yeneen baalu ah. àq di nuyu suñu waajur yi ca kër ga. Mhm. sëñ sëñ Ndiang. Mhm. ak imaam Ahmed. Mhm. waaye suñu waajur bu nekk ca gox mu yaay Saalum ñaan ji yaay Thiaw. da ko ñaan gudd fan ak wér ak njabootam ndax famille mu ñëw sama kii chaque jour sama kër lay nekk moo ko dem. ndeysaan guddi gu jot fa la ñu nekk. di nuyu waa association bàyyiwuma kenn kenn ku nekk ku nekk di yeewoo Daaru Salaam rek sukk naa sa kanam jox la loxo jëlee baalu àq. incha allah suñu korité bi ñu jóge nii. yàlla yàlla gudd fan. te mbokk yi. yoo xam ne fii ñu nekk ci politique bi. Mhm. am na yoo xam dara jaru ko fi day jeex. Mhm. dafay jeex keneen teg fi ak ku fi mënti nekk tam suñu borom moo la fi teg yàlla mooy fal. doomu aadama du fal bu ñu kenn du def violence. te nan bàyyi violence bi. nan waxtaan ñu diisoo. nan mhm. sottante xalaat. surtout liir bu dee ñëw day ñëpp loxoom. waaw nga xam lu ñu indaale. nekkee néew day bàyyi loxoom ndax deful dara. yàlla neen kenn amul man am yéen ñëpp a ñàkk. kon nag fii. booy ñëw doo yor dara. booy ñëw di indi matériel. Ah. boo génnee àdduna la même chose. Ah. boo juddoo néew la lay tuddee. Euh, lii la lay tuddee. Ah. boo génn àdduna néew. kenn tur amul. sant amul. Aboubacar Sadiq lu mu sant. amul. yonent bi lu mu sant. Omar lu mu sant. Mhm. amul. Ousmane lu mu sant amul kon fii lañ ko créé. Mhm. kon nag fii loo mënti def ak loo mënti wax. Mhm. da ngay

nekk ci complexe bi nga xam ne mooy complexe Samba Diaw Ndiaye macha allah am taxawaay loolu ma nga foofu ci kër Issa soxna Sagan Ndiaye macha allah ñu ñaanal suñu DG njigéen maam as yàlla kàttan na ko kaweel ko ndax ki la boot di bëri da koy ñaanal mu daan saa su daanee rek nga wax ci kaw ñaar c'est important de le dire muy su de la faire ñaanal bosi aussi ki nga xam ne mooy Serigne Sadou Touré Touré Balla yàlla kattan ko teewal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi lii lañ leen indi loon seen émission lañ joxaat di daje beneen yoon ak yeneen taxawaay ak yeneen kàngam jaa ngeen jëf et merci beaucoup